Bye. mujj man damay rab di dégg ayaa rappeur yaa ngi gaañu jàppee leen dina ko ba jo bokkuma ci nu ne ko nakamura ku ñu jàppalee fi ne mais gisuma booy bu ma fi dàq rap yow am nga disque d'or di duulam danga ko gënt biig mbind mi carré na kay mais gis nga man mosuma bindee biig réel wala fake yeneen booy yi dañuy ŋaralee ak grand yi rab di meew seen flow yi niñ koy baarale man dama gane ci seen game public bi basculé bu ma durante taxoon a jóg maag sa rappeur ñu lon koo basculé yéen da ngeen mëccu testu kiil ba seen baat yi xuur man damay jàngale rap sans sa gën a ma jox la cours maa leen gën a gore foog Alain sans retour su ma doon bindee protect lu tax ñu am rapport man bi may déglu booyi laay dégg ñoom ma ko poobar fii ku juddoo ci ay bomb mun ta ragal pétard yow da ngay daw xoolan man ni may raame ci biit lenn lay laaj mooy lu tax man ma dooma raame ci biit may diw sameer mu naan ma jaas ay ca defal lu xees woy wi këpp galde noo kenn du ko woy ci tefes naroon na góore mais res nee na micro bii du xuur ñoom ñëpp dañuy sóob kenn ñoom toogul ci seesu buur olof nee ñëwaati fi ñëwaati ndanaalé jël ci fi benn xale hmm, ñu gën ka xam maam gor gui siñoor doomu nday yaay salum borom yimbal marin borom jumaay Pël Fuuta mbokkum yaay Ilimaan ah te mom lañ jël ci fas yene yaatal fas yene waxtaan ak mom maam gor gui ñu lay nuyu. waaw ah, sida ma lay fay waaw di nuyu wa aduna di nuyu wa yëmbal yépp xam di nuyu wa Cap TV waaw di kontaan na ci dalal bi ngeen ma dalal. waaw di si am mbégte bu baax a baax. boo ne maam góor gi xel dem si làmb nga ne maam góor gi xel dem si maam góor gi numéro un avant tout maam góor gi tur foofu la jógee wala. waaw ah, tur bi foofu la jógee parce que dafa am benn tournoi bu ma doon bëree côté quoi. Mhm. waaw ma bëree foo wane sama bopp. benn fan si maam góor gi xaritu maam góor gi ne ma yow léegi sama mbër nga quoi mais à part d'aujourd'hui dama lay tuddee maam góor gi si la jàpp sama loxo yóbbu ma ba si maam góor gi. noonu la demee. ca la jàpp sa loxo yëmbal ba si maam góor gi avant nga ñëw yëmbal mi nga jaaroon. waaw foofu bëri naa la tournoi. ah kon cofeelu làmb mi dinaa la la toppee. waaw bëri naa fa naa fii quartier basse. mais waxuma loolu de Medina fa la la làmb gi toppee avant nga ñëw yëmbal fekk na nga nekk mbër wala. non làmb moom depuis bi may nekk xale daf ma neex dama ko bëgg mais dugguma ci woon. dugguma ci woon. dama ko daan fooyee bu ma demee géej fu mu mënti dem dama koy fooyee mais dugguma ci woon maa woon ci beneen yoon. mais après xam nga lo gis dread la mhm. waaw tollu fo xamni dread ji yeungal ma ma dagat limay def yep ñu waat si laam dread ji ci mbokk la wala ci dekk ndore la wala di and ak ay mbeur waaw mu naani ci mbokk la parce que man sama papa da na beure mbokat Casamance ken musu ko fa daan ku mosa daan sa ce mbapatam bëri woon na kon non beuri na beuri na lu bari sax beuri na lu kon daan nañ ko da nga yewu rek mais ku mosa daan non loolu mu sé daanu Moussa daanu si mbapat loolu Moussa daan man bu ma fa demee bu ma fa demee paa yi fa nekk dañ may wax ne ma yow doon noo sa papa quoi xam nga loolu moom waxu ko si gémmiñam. la waaw da ñëw ci dëkk bi ñu la koy yow doon noo sa papa. ndeysaan parce que moom bëri na fii ba bàyyi su fi daan. su fi xamul nag lan la mais mosu fa daan de. Hmm. waaw. en même temps moom daan naa ne ñoom duubalees affaire yi en même temps mun naa ne topp na ki wu làmb bi toppoon na ma parce que tamit sama sama yaay ñom musa fa gay suñu musa di bëree mo leen daan toga en même temps ñom suñu mosoo leen daan du ci guddi gi ñom ñep dañuy ñew kër ga boobu xàmmeewu ma sax ay ngi dégg waaw yooyu yëpp mën la topp aussi kon mën nañu lamb da la wër yow ñu ñew juddi ci lamb lamb da la wër nga ñew juddi ci lamb sank wax nga ko ay quartier bass mbapat mën nañoo némé ko ban côté nga gëna fonctionner ci mbapat ban côté laa gën a fonctionné ci mbapat mbapat nag li ma ci gën a def si àll bi la àll bi la waaw bi moom dama daan jël sama sër kenn du ma yegg ya dugg nànk su ma am dara ñëw su ma dara ñëw di def di def ba ren bi moo si mucc avant corona bi may gata gàtt ni avant corona bi avant corona bi dugg naa àll bi jël fa xam nga yaakaar naa vidéo yi booy yëpp yor nañ ko seen téléphone waaw dem su ma juumul sax am nga ko envoyé ma la mën naa nekk de. waaw vidéo yi bari na fi de. Hmm. booy yëpp yor nañ ko seen téléphone. maa trophée nga am si àll bi seen mi. àll jël naa fa ay nag. Hmm. jël naa fa ay tonnes ciment. tonnes ciment. ba si eh, bu mujj bu mujj bu ma mujjee bëre maa ngi bu ma mujjee bëre mooy boobu écrit bi yëpp dem ñoo dem xam nga lañ nag lañ tegoon lese bi lese bi yëmbal marin moo ko jël luur bi yëmbal marin moo jël man maa jël luur bi raw gàddu yëmbal marin moo ko jël su du tournoi bu ma gisoon solo yi ñu ne yëmbal ma lay jël nañ ko ñu resi sama photo te yaa ko jëloon. waaw def sa photo def nañ man maa jël tournoi. ma bi a leeralal moo ko moom moo jëloon nag bi. ñu def si sama photo ne Siteu mun moo ko jël. maa ngi photo bi fii sax sama loolu nga jóge fi mais avant boobu fekk na nga doon bëree fekk nga dugg ci arène bi avant bobu arène bi nga def ñaata sortie arène bi mo xol arène bi amna naa fi arène bi amna fi trois sorties trois sorties mais nekul ni fii laa njëkk bëree arène bëree ci di Jaxate gala yang Jaxate waaw drapeau baa ci ci kaw kaw wé gala mbapat la won wala arène lolu combat arène la combat arène la loolu fan la fan la woon fii Thiès Thiès nga bëri fa tournoi gala la gala comme gala yi am si lamb yeeg yooyu. gala la dañ ko doon seetaan direct télé te ñun dañ doon départ fii di def man foofu laa njëkk a bëree. foofu gala bi yàq na kan a bokkoon. gala bi ma xool gala bëri naa fa ak benn mbër bu tudd Modou Lo numéro 2. Hmm. Pambay bokkoon na ci mais après xam ah, dafa am gàllankoor. Pambay benn mbër bu tudd Pambay. bu nekk foofu toj na foofu. bokkoon na ci mais après moom dafa dafa. tournoi bi poul la. Hmm? poul bi carte la woon. tournoi chaque. wala du doon kalaafu bu ñuy dóor trois weekend la. trois weekend la mbaa trois weekend la. dóor loon wala simple. dóor loon. trois weekend da ngay bëree samedi bëree waa samedi wala. da ngay bëree samedi bëree waa samedi bëree waa samedi drapeau baa nga fii si beri maa ko. yow yaa ko jël yow. waaw mais loolu CNG est-ce que bi kii nañ ko CNG. boole nañ ko sa palmarès boo demee CNG parce que CNG boo bëree Fatick wala nga bëree fële muy arène CNG yooyu ñoo fi teewal CNG yi mais dañ koy dañ koy bindaal est-ce que ba lim bilan yëmbal mara bi boole nañ ko ci année boobu année boobu nekkuma yëmbal ma rek. ah nekkoo yëmbal ma rek. année boobu Zac Sirac laa nekkoon. Zac nga nekkoon. waaw ma jógee Zac dem école Bunaama jógee école ñëw yëmbal ma rek. Ah, def nga trois écrits trois combats yi nga jot a bëree xam nga quatre combats. boobu comme ça bi ma bëree yooyu yeneen combats yi nga xam ne nag ci laa commencé di bëri Ibamara. combats yi nga commencé bëri Ibamara. yooyu yooyu yëmbal ma rek journée la. yooyu nag moo nekk direct yooyu si lañ commencé. dina xaar waaw yooyu tax ñu naan lamb parce boo xoolee man sa lamb yooyu boo xoolee solo yooyu laa fay gis tey boo tapee yëmbal mare yooyu lañ la fay indil. sa premier combat arène nag. Hmm. sa premier combat arène fan nga ko bëree. yooyu Thiès laa ko bëree. Thiès nga ko bëree léegi yu Thiès yi CNG la la kii woo ko moom reconnaître ko. reconnaître na ko kay. Eh, ba ñuy ba ñuy lim année boobu noonu seen écurie boole nañ ko ci bilan yi bu ñu koy lim Zack Sirac dañ ko ci boole. dañ ko ciy boole. waaw comme ñaata combat nga def boobu boobu ñëwagu ma fii. gala boobu trois combats trois combats trois victoires. ñëw jël ko waaw. mu ñëw jël ko final par point. waaw jël ko. waaw nga jógee foofu sa premier combat Iba Mar yaakaar. ma sama premier combat Iba Mar ma ne Fabis Karbala. ba mu def ma ñaax ko. ma ñaax deuxième combat bi. deuxième combat bi man ak Ilo. Ilo benn. waaw mu doon def naan. ma ñaax. ñëw bëreeg Tapha Tine mm-hmm. am ndam bërewaat man ak kii man ak orton ñaax ko ñaaku ko kon da nga def deux sorties ñàkk préparé waa ñëwaat amaan ndam defaa sortie ñaakaat ñaakaat mu nekk quatre combats léegi defeti noo ko jàngatee nga tegle première prime nga tegle loolu Iba Mar fii nga xam ne Dakar maanaam stade bi jege na jege xam ne ñëpp lay bàyyi xel voilà léegi nag affaire boobu noonu xaw na ma touché quoi parce que. non du la touché du la xaw a touché ñaari defet ku ko tegle moom si mbër mu ndaw. waaw non da ngay da ngay touché. voilà noonu la demee nag métti na ci man nag. dëgg trop sax. waaw métti na ci man parce que maanaam exploit bu mu war a ci yow. loolu lay fay quoi da koy fay li mu war a ci boppam loolu lay fay mën naa ne tey jii man ñi ma war a bëreel dëgg-dëgg sax nii nii nii loolu mooy tax pour nga bëreel ñoom sax. day jafe duñ la a jël dañ naan defet yi quoi ah. pourtant ñooñu ñooy say morom. Hmm. ñooñu ñooy say morom. léegi boo ko jógee foofu nga waat ñëw yàlla may la ndam yaag tafaatin ba nga ba nga demee ñàkk jour boobu nga ñëw yaag tafaatin yàlla may la ndam ba ñëwee naka nga gën xoolaatee sa bopp bi ma ñëwee nag ma gën a nekkaat ci liggéey bi mais après ma am gàllankoor ci diggante bi sama mère feebar année boobu yëpp ma nekk ci quoi bëreewuma pare na ci laa ñëwaatee nag defaat retour. defaat retour waat retour bi pour dolliwaat si victoire. waaw kon yàlla suñu borom am na mu demee. parce que nit moom waajur moo gën a foor lépp. waaw bu fekkee da ngay ñëw di wut si dara tombeeg sa waajur feebar bon nga gérer ko ba pare comme man maa fi nekk fii ak moom. ba pare après soog a ñëwaat quoi mun naa ne sax année boobu noonu dama waroon a ñëw rek tàkk. sa boo jógee ci victoire da am leneen loo gën a. àndal da ngay am alir waaw te boobu noonu. Mhm. boobu noonu ñëpp def nañ ma nii. moment boobu noonu man su ma ñëwaatoon année boobu rek day baax mais année boobu noonu laa nekk ci maire bi nekk ci maire bi ba daan di laay soog a bëriwaat su ma bëriwaat. defete ba ko amee mu métti trop ban côté nga jàpp ne moo manqué entraînement bi wala contact bi wala mystique bi. non entraînement bi moom manqué wul parce que man am naa samay moromu mbër yu may àndal. Mhm. ñoom heure ma daanee dañuy. dañuy dañuy dañuy jaaxle dañ naan sa waay lan moo ko war a daan maanaam tey ji mun naa ne damay dem du ma xàmmee sama bopp bokk lu ma bëgg a wax damay dem ba foofu du ma xàmmee sama bopp parce que yow nit. ndax su du manque mystique moo lay jàpp kon gars dañ lay jekku ci gàllaay parce que mbër mi pare contact di def nice dem ba làmb ja doo xamante foo nekk. ah damay wuti lépp de man. est-ce que sa sëriñ ci naxuñu la. mën naa am mais damay wuti lépp. ñëw hmm. teg waaw damay wuti lépp. lépp dama koy wuti. mos ngaa dem stade ñu jàppale ci galañ ba fonctionné woo yow. doo ko sentir nag. doo ko sentir doo ko sentir. Hmm. mais des fois. Ah, man moom en tout cas bu arbitre moom. Hmm. damay ñëw pour jëflante. pour jëflante sentir a guma lool. ah waaye. que lan moo tax boo demee làmb doo nekk. ah comprendre moom public bi nga ragal kon. non non non non public bi àll bi moo ëpp public moo ëpp moo ëpp ay yu si la la nit ñi di gën a jege te damay bëre. Iba Mar Iba Mar Diop. Ah. bu supporter taxawee ne amateur taxaw ne. buñ eh. dënd yi joole borom fit a koy dëkku de parce que yaa ngi sóoraale. waaw mais borom fit bi koy dëkku man man tey jii mun naa ne sama sama benn sama sama victoire bi ma bi ma bëree man ak Tapha Tine hmm? combat boobu noonu public baa nga fa ñëpp ngi yuuxu te combat boobu moo gën a métti sama yeneen combat yi parce que man na am yow soo may daan mun nga ma waaxu sàcc ma. sàcc la sa combat yëpp amul mën naa am yow yow yëpp la sàccee. waaw mais mais bu fekkee lu yàgg di corps à corps di bëre di corps à corps di bëre ku ñemewul doo ko def. doo ko te Iba Mara. da nga wax solo sa combat yi benn côté lañ lay sàccee lu waral loolu lu waral boo ñëwee doo fàtte loolu te chaque jour en général mbër fa lañ jaar pour daan la yow mam góor waaw loolu moom instant bi gën nañ taxaw pour liggéey pour liggéey loolu. waaw xam nga ko yow trouvé na trouvé na nga solution comme ni ko gars di waxee. waaw ba xam ne loolu moo lay daal. Hmm. loolu ban décision nga ci jël après pour sa retour. ban laa ci jël. Hmm. jàpp ne loolu jeex na. jeex na bor ba nga yoral sa fan si dafa bëri de xam nga loolu. waaw xam naa loolu. est-ce que pare nga pour fay laa leen fay ba wis leen allah. Hmm. après après loolu adversaire yi nga war a yow mam gor gi si làmb moo doon limal ñan nga ma si mën wax. adversaire mais aussi ta yow. instant bi lamb de yow dépassé nga fo xamni mbeur da lay tok nan la nan la sita man ñi la wara beurel yow ñi ma war a xam nga ne. xam na le mais dama la laaj yow ma def émission wala def émission dama la laaj yow. nga wara beurel wa deug na mais man ñi ma wara beurel ni bari na. muy ñan ak ñan instant bi li ma la mën wax lu gàdd mal moy ku ñew bax la non non ku ñew bax na la joxoon yaaw jox lañu ñu jox la benn mbeur bi am premier combat doo ko jël. wa yaw jall yaw jall mo raw ci lamb bi. mais am na mbër yoo xam bu la ko xon doo ko jël yow tay ban adversaire nga jappu de mom mam góor ni combat la bu la promoteur woowoon tay démarche loolu. di nga ko ma yow tay bu la promoteur woon ne la sa combat la solo yow yoo wax yaa kan. promoteur xana bu la woné ne sa combat yaa kan. mais promoteur mën na laa woo bëgg a njëkkee si yow donc laa xoolal adversaire ne léegi xoolal ban mbër nga bëgg a moom. loolu du làmb maam góor yow kon yow boo bëggee jàpp sa làmb day métti ku ñëw nga bëree moom est-ce que loolu du métti après sa carrière bi parce que gis nañ fi mbër yoo xamante dañuy bëri seen naataango ñi dañuy tànn yoon mais lu si ëpp solo est doo xool say adversaire di bëri ñoom Le boo nekkee si làmb ndax moo sa adversaire loolu lu métti nga foofu. non adversaire moom bari nañ ci. limal ma ñett ñett rek ne diw ak diw. sama adversaire. Ndiaye Tine non mbër yow da ngay xaru. seet xanaa Ndiaye Tine ku jóg rek jox nah, kan leen nah, ma non Ndiaye maa ngi moom làmb la. non yow Ndiaye ñoo mbër nag xoolal kenn ak kanaat. Ndiaye maa ngi moom la. ak bari na man dama sax. da sifirtu da nga am si làmb wala am xaalis. ah waaw yow boo demee ba nekk si làmb amaati ah yéen ñu. man amaguma xaalis. bu demee ba nekk si làmb xamatoo ñu. man xaalis c'est que man ñi ma. <laughs> ah loolu ne nekk si làmb te yow xamatoo ñu ngay bëreel kenn nga si xam boo xam ne xamatul booy lii man ma si booy nga war a bëreel maam góor gi yooyu ku la nga ñemewul booy. ragal. loolu kay bu ma ko mënee def tekki ko legi da na ci nga ma limal ak karaat. wa mais xam man dama bëgg di tuddu sen tuddu di non am nga nu tuddee njaay non fi may boss am fi bari yëpp am boss yo da nga am boss bari am nañ boss wa non non tuddee njaay ci tuddee ko kenen ñoom ñoo ma ëpp bës sax mais day melni man dama leen di suivre xam nga. te te fi sax da nga fi laaj comme ça ni da ngay ñew laaj benn mbeur da ngay ñëw laaj benn mbeur mu ne sa way daf ma parel di ma laaj. di ma laaj wa jikko mbeur la. xam nga wax yoy do dama koy sooralé tamit quoi Eh, ñoo laaj benn mbër mu ne sa waaye daf maa jógal di ma laaj moo tax su ma sañoon daal xam nga hmm. dama lay bàyyi ak loolu noonu yow kon yéen mbokk yi seetaan Cap TV ah maam góor gi lañ dalaloon nekk écurie Yeumbeul Marin comme ma leen ko waxee sànq doomu nekk grand bu baax nekk grand bu bee di nuyu sama fils bébé ah, eh, na gën a góorgóorlu dinañ fa ñëw entraînement yi nii la lambo ak lii ñoo ànd dafa nekk si ay tolo tolo ñu ngi ko ñaanal yàlla mu jogaat ah moom seen mbër ah kon ma leen ko waxee maam góor gi ah damay wax émission bi jeexagul damay fàttali gars yi carrément ah, ñu ngi ci biir émission bi. pour ñu yokk abonné yi gën a suivre émission bi. ñu xam ne yow lañ dalaloon yow maam góor gi. léegi dafa am benn message ma bëgg a jàllale. waaw sama papa Cissé dama koy wax ne ko. Mm-hmm. fi toll ni Maroc yeeg Nigéria yi moom dama cee sonn. ah dem nga Maroc Nigéria. waaw ay yoon oh. yoon. mais dama ma la gëmatoo laa ma ji koy dem bay dem ay Maroc demee damay mën a doo xam adversaire yi damay tëran foofu noonu mën a doo xam adversaire yi man lamb bu ñëw dama koy suivre te damay contact damay entraîné damay def avant corona bi ban mujj am avant corona bi doon nekk avant corona bi ban journée moo mujj noo am avant corona bi waaw defal naa man avant corona bi maa ngi woon si àll bi di bëre. di bëre si àll bi. waaw sama combat yi ma lay tegal nii. léegi loolu xam naa si àll bi la waaw ku nekk si àll bi di bëre même bu seetaanul télé moom mu si àll bi di bëre. <laughs> daal maam góor nga si lamb rek na xaalis bi daa ñëw rek loo wax sa papa jënd na. dama bëgg mu tapel ma visa États-Unis. États-Unis léegi gars yi. non loolu ko defee ma dem foofu yokk doole ji ñëwaat. mais est-ce que boo ñëwaat Sénégal fii di xool lamb ji di ma États-Unis yëpp toog baax rek man damaa bëgg am hmm. de. ba demee damay ñëwaat naa dem yokku maas bi rek liggéey bu baax ñëwaat. Hmm. waaw loolu laa bëgg mu defal ma woon. Hmm. waaw moom sama papa ju baax la xam naa su ma ko waxee su ko déggee dina ko def. incha allah waaw noonu la demee. boo amee looy ñaax autorité yëmbali pour ñu gën a ñëw taxaw la sa gaa yi am di jàmb yi. waaw yëmbal moom wax dëgg yàlla dama leen di waxaat rek ni leen. nañ ñu gestu quoi gestu mbëri gestu population parce que tamit ñun ñoo leen fi teg. parce que mbër gi démb fii rek yaakaar naa ne ndox mi metti woon na trop. dëgg la ñun ndox mi dugg na sax ba suñu biir kër ñun. Hmm. fii te fii mosul am ndox. waaw te loolu noonu yaakaar naa ne dañoo jël place boo xamante ne nii. du place kër ñu def sa ñu def ay kër te ndox yi ndox bi bu amatul yoon day ñew ci kër yi ci kër ya kon lolu autorité yi war nañ ci taxaw bu baax baax gën ñoo jàppale tamit ñun bari xamal ma la wax gën a tamit artiste yi nekk yëmbal yëpp wa di gërëm bu baax sama boy bi Pikon wa mom sama way la ma ngay bëgg baax di dégé mo VIP xama nga waaw di di gërëm di dem ba Touba di gërëm Samandour di gërëm tamit xam nga boole si Seera su si daralu kër kàbbu ñoom Lagrose benn champion am nekk foofu sama gaañ la. Mm. maa ngi koy gërëm di gërëm waa daralu Lagrose bi yëpp daralu kër kàbbu bi yëpp di leen bëggee bu baax a baax a baax xam nga di gërëm waa yëmbal bu baax ba mu seen fay xam nga. di gërëm yaamaloo kooku soxna Cissé loola maa koy gërëm bu baax ndax may jàppale xama ci côté yëpp ak maman Ndege ñoom Fatma loo xam ñoom Pablo gaayëpp di gërëm sama yaay bu baax. ay ñoom Rama waaw ñoom Rama sama jigéen yooyu ñoom Awa Ndiaye xama maa leen di gërëm daal di bëggee sama fan si nekk yëmbal fii nga xam ne dañ may jàppale bu baax baax di gërëm pré président Mouhamed Dieye Dev ñoom Paate xama gars yi daal dañuy sonn si man bu baax xam nga Diop xam na li may wax bu baax fii moom sama xam nga gars may taxaw quoi. bu baax a baax. aw ma seen fay quoi. amul fayam ah, amul fayu gaay di bëggee ñëpp di bëggee sama doom yaay parisien kon ma ko waxee woon sànq parisien bu Faas parisien bu Père Ba Ba bu doomu yaayu Papa Sow borom parcelle waaw parisien Père Ba na ko mu recevoir ma damaa kaa soxla fii laa koy waxee en direct Cap TV ah Père Ba mu recevoir ma ma bëgg a gisee ak moom. waaw ñu ngi koy siyaare baax nag dinaan lépp lu muy def si axlu làmb mu ngi yegg si waaw na gën a taxaw na gën a jàppale borom 19 père ba suñu papa ju baax ji di la siyaare di ñaanal yàlla njaboot gi ah yaa xam lu nga bëgg ci ñoom yàlla na ko yàlla yeggale si barke yonentu yàlla Muhammad di siyaare waat gars yi kon ma la koy waxee Assane Mataras wala ñu ne Assane Assane Mataras centre commercial Touba Sandaga sama mag ju baax ji dëkk yëmbal di ma jàppale si lépp lu ma nekk man si ta dama siy jàppale di wax gars yi ne képp ku bëgg lu rafet rek wala képp ku bëgg sànca rek doxantul nga xooli Assane Madaraas ah, nekk centre commercial Touba Sandaga la ne ah, premier étage numéro téléphone am bi chaque jour dama koy wax ne dama ko jàllale 77 la 466 33 26 77 466 76 la 76 466 33 26 76 476 33 26. kon sama mag la ak foog ma koy gërëm di ko sant. Eh, di gërëm Mor Fall bu baax nag. ak waa yëmbal fa ak waa yëmbal Marais baax. Mor moom amuñu fayam quoi Mor Fall kër si yëmbal Marais mooy lépp yëmbal Marais daal. amuñu fayam di gërëm champion yi fa nekk. ñoom Saloum de xam nga. Elimane ñoom Elimane Bébé Talla xam nga gars yëpp waaw yëmbal moom xam nga. buñu wax ndaanaan fi la fekk baax buñu wax beure fi la fekk baax leneen kay lañuy wax mais ndaanaan ak beure yëmbal la fekk baax kon maay bëggé champion yi nekk yëmbal yëpp waaw di leen won yoon bi kon ma leen di bëggee bu baax baax baax di leen bëggee bu baax baax 100 pour la won tay ñu ñëw jël ci mbaru yëmbalee Cap TV dëkk yëmbal ñëw tey delloo ñukal ko ñam di bëggee wa ñëpp di joxa ñëpp beneen rendez-vous inshallah wa def buñ commencé liggéey mom yagna parce que ñu ngi fatalu ko premier combat waaw xam nga ñoo àndandoo di dem premier combat moo euh, booy waaru la woon waaw boobu noonu tournoi la woon xam nga bu ñu jéegoo ci tournoi yàlla def na tournoi yun ma ci ànd yëpp si àll bi moom da koy jël nekk na daal mbër bu xarañ moom waaw même yëmbal tamit aussi ñëpp ràññee nañ ko fa waaw nekk na mbër bu si gën a siiw moom wax dëgg yàlla si côté boobu moom wax dëgg yàlla ñu ngi si woo tamit waa yëmbal ñëpp waaw ñu leen si woo ñoom ñëpp tamit pour xam nga ñu ngi si gën a mën a jàppale am na ñu ñuy jàppale nag wax dëgg yàlla am na gars yi ñoo xam ne ñu ngi suñ ginnaaw ñu ngi si sonn moom bu baax a baax mais tamit xam nga ñu si woo tamit ñëpp quoi ñeneen ñëpp ñu ngi leen si woo a a baax xam nga te tamit ñu ngi tamit aussi tamit gars yi sees xam nga waaw pour ñu mën a xool si suñu kanam quoi parce que am nañ fi ay jaajaa yoo xam ne wax dëgg yàlla xam nga génn nañ si daal macha allah quoi moom wax dëgg yàlla moom moom nekk na mbër bu xarañ moom waaw nekk na mbër boo xam ne moom wax dëgg yàlla respecté na entraînement am respecté na doomu aadama yi aussi tamit koñ bu mu dëkk tamit ñëpp a ko fonk parce xam nga xàmmeewul xalé ak mak wa deug yalla du génnee di dem entraînement sa bala ak entraînement day sonu parce que xalé bu mu romb dina taxaw nuyu la xam nga bëgg yow xam nga kafa ak yow rew yow doo jall jàll te aussi tamit loolu lañuy sentu ci mbeur quoi wax deug yalla mom koñ bi mom xam nga non la fa démé mom ñep ñep ko naw quoi waaw mbeur bu xañ la mom mbeur bu mën a la waaw ñun mom gars yi si làmb ji moom instant bi ñom rek lañuy xaar quoi mais yor nañ mbeur bo xamne mom amuñu leen lu ñuy tisti moom parce que respecté na bopam aussi respecté entraînement bu baaxa baaxa baax a waaw ñu si xaar lu waaw ba léegi daal xam nga waaw ñi nga xaar daal kontaan si moom bu baax waaw ay combat yi ay combat yu mag lañ soxla quoi yoo xam ne min suñu kanam fu ñu toll nii moom rek la ñuy xaar nañu gars yi na gars yi ñëw quoi bu gars yi daw yaa ngi dégg gars yi mille de fois dañuy fii seet si mais gars yi xam nga dañuy daw quoi ñu bëri xam nga dañ koy teggi quoi dañuy teggi waaw mais léegi nag xam nga na gars yi bàyyi teggi bi quoi tey ñëw xam nga bëri maam góor gi quoi waaw mi ngi nii moom laamu rek mooy métier te laamu la xam aussi